waa Louga ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di jaajëfal waaye ñu ngi leen di jéggalu bu baax a baax a baax ndax euh, suñu yéene mooy woon ñu teel fi yegsi parce que Louga dafa am symboliquement lu muy représenté ci suñu combat di fas yéene woon teel a yegsi mën a passer le maximum de temps ak yéen doxantu ci biir dëkk bi dem ci yenn bërëb yi parce que ñëpp mënuñoo ñëw ci meeting yi dem saafonteeg waa Louga waxtaan ak ñoom ñoo ngi nuyu waa dëkk bi yëpp di nuyu kilifa diine yi fi ne di nuyu kilifa aada yi di nuyu. suñu mag ñi nga xam ne bàyyi nañ seen yite ñëw fekkee jotaay bi ak heure biñ ko def di féliciter di remercier jeunesse bi parce que ñëpp xam ngeen place bi nga xam ne jeunesse bi am nañ ko ci suñu liggéey yéen ñëpp xam ngeen ni dañoo jokkontool dañoo jàkkonteel ak système bu doy système bobu nak likoy caractériser bëri na dinaa ci delu ci ci yenn yi waye bokk na ci likoy caractériser moy ni tubab di wax lâcheté moy mi keur li am légui rek instant incident bu ndaw bi wane nako moy ay nit lañ yoo xam ne balaa ñuy balaa ñu lay mën a ñeme rek nga wane gannaaw li tubaab di wax li tubaab di wax poignardé dans le dos moom rek nañu ñeme su ma ko waxee rek danga koy dugal au sens figuré comme au sens propre ndax toog fekk ay yaaram yu dajale seen daje di waxtaan saagawuñu xiroowuñu ŋaayowuñu nga dem làqatu ci lëndëm ba di force xeet di sànni loolu lâcheté mënu ko wees lâcheté mënul wees nga bàyyi ba deux heures du matin daal di dem def éruption ci siège yu jàmbur fekk fa ñaari xale rek ñu fay fanaan ak benn agent sécurité nga fukki waxambaane ne seeni ñew di siège ba ci la bokk lâcheté mënul wees nga dem ba liñ la république ndax dara gënul république nos forces de défense et de sécurité nga leen di leen joueloo des missions politiciennes nan len dem len keur jambour di réclamer ay fiches de parrainage loolu lâcheté la lâcheté mënul wess li xew barki demb ndar bett ay militants ñu nek en infériorité numérique nga yónni say mbeur ñu dem di len door di len gaañ wala di len attaquer ak ay jaas waaye lâcheté it ci verbalement mënul wees saa suñu xëyee moom Macky Sall man dama koy tudd wax ko ko moom xam nga sénégalais yi dañ naan sénégalais yi xamul rawatina suñu mag ñi Sénégalais yi xamul dañ naan moom de dafa yaru dafa noppi waaye bu ñu jaawale yaru bu ñu jaawale yaru ak li tubaab di wax sournois xaw ma ci olof mortala waaw xanaa mii kër la ndax yow mën ngaa bañ a saaga waaye bis bu dee nga yebal nit moo xam politicien la moo xam journaliste la moo xam lu muti doon nga ne ko demal saagal ma loolu dafa boole miikër ak lâcheté ndax nit looy def da koy ñeme assumé ko mais yónni say nit ñu nekk suba ba ngoon jot di saaga nit ñi boo génnee di jaay yaru yarulu loolu dafa boole miikër ak lâcheté ñu ne nag ñoom suñu amoon tuuti xel dinañ xam ni seen méthode yooyu nga xam ne dafa boole violence verbale ak violence physique mënul marse ci ñun Macky Sall bu toogoon xoolaat boppam xool fi ñu jaar ak moom juróom at yi weesu dina xam ni su amee ku ko ragal ci àdduna ñun bokkuñu ci fi ne nii mu ngi yor moyen yépp fii soo fi xooloon war na ma renseignement fees na fi del bi ñu xëyee ba léegi dugg Daara Jolof Linguère ak feneen ak feneen fu ñu dem alkaati yam yaa ngi topp wala alkaati Aly Ngouille Ndiaye waaye loolu li muy firnde mooy ragal suñ koy seet suñuy seet ragal nañ ko seet ci ñoom ñoom ñoo ragal fi mu toll nii ma ne fi mu nii ma ne fi ñu toll nii de waaye bi ñu dooree ba léegi ragal bi tiitaange gi ñu ngi koy seetee ci ñoom parce que nag olof dafa ne lu yëngu rek li ko yëngal la ko ëpp doole man soxlaw ma xam Macky Sall lu muy def ak fu mu ne parce que intéressé wu ma waaye mun naa leen ne dem suñu meeting bi fi mu ne nii mi ngi toog di ko seetaan waaye defe naa waxtaan bi ñi ko ubbi dafa mel ni dañoo santiroon fi ma bëggoon waxtaan ak waa Louga tey maa ngi bëgg waxtaan ak waa Louga ci les valeurs li ñuy tuddee les valeur parce que ñii fi nekk mag ñi fi nekk parce que bu ñu jàpp ni comme ñoom màggatu politiciens yi lajj nañu wala lenn ci màggatu politiciens yi laaj nañu que ñépp ñi newoon ci politique di mag dañoo laaj loolu amut maa jey Mbodj miy jël fi kàddu léegi nga xam ne depuis 40 ans ngi ci politique bi yàgg xeex ya nekk ci clandestinité ba nekk ci parti bu ñu reconnaître di xeex ba tey yi exemple la nii du ñu nekkoon ci politique ñépp ñoo laaj waaye li ëpp ci ñi fi newoon ci politique di mag gis nañ ni lajj nañu looloo ñu andi ci Sénégal fii ñu toll malgré yalla lim fi def yépp ci alal ak ci possibilité ñu am gàcce ñuy bolé ci 25 pays les plus pauvres du monde loolu musiba la ba tax nak jeunesse bi ma gis fii cette jeunesse décomplexée cette jeunesse saine ambitieuse, cette jeunesse patriote, cette jeunesse ne peut plus accepter cette situation. dinañ ci ànd nag ak suñuy papa ak suñuy yaay yi nga xam bok nañu gis-gis ñu encadré ñu conseillé ñu won ñu yoon cette jeunesse a décidé de prendre son destin en main li tax nak exemple Mortala Nit C'est un exemple am am solo ñun on n'a pas le droit de faillir xam ngeen ndax lan buma ma exemple yu melni mom mi da fay fees sama xol parce que ñepp xam nañ ni li yëngatu ñaare engagement politique mën na ci yaq lu bari ñepp xam nañ ko malgré loolu yépp mu accepté jël risque parce que Sénégal fi mu toll c'est l'appel de la patrie dama combat boobu jeunesse bi ñenn ñi doon ko mëne jaarale ko ci aar li ci gën a fës di mouvement hip hop ñun ñi ñëpp ñoo bokk génération dama bëgg ñu xam ni même combat boobu la ñun ñii di mëne waaye opte ni nag dañ koy jaarale parce que aw ma talaam ku ma dugaloon studio mënu ma cee wax ñetti baat waaye boor bii ma nekk juddoo ci réew mi yaroo fi màggee fi Je ci réew mi ba yàlla may ma ci as ci xam-xam ma liggéeyee ci état di gis ni ñuy yàqee réew ma ni combat boobu ñoom ñu doon ci dénonciation war nañ ko a ci engagement politique c'est le même combat réew nag dafa fu muy en période de guerre dañuy réquisitionner tous les jeunes et même les moins jeunes ñu war a mun a yëkkati fetal dem xeex yi Sénégal foofu la toll waaye du guerre révolution pacifique lañu bëgg mooy sénégalais yi nga xam ne am nañu yëg-yëg bi yëpp te yàlla may na leen ñu fekke tal am wér-gu-yaram kenn amatu ci droit toog naan damay seetaan le terme apolitique n'existe pas personne n'est apolitique je suis non partisan parti je suis apolitique amul la politique est consubstantielle à l'être humain Si vous avez dem marché ba suñu mbokk jigéen yi 500 francs vous avez francs jambat ne dëkk bi dafa cher Nous, mi cher na yaangi politique parce que nous ngi wax naka la société bi wara doxé rek politique ça, saayu politique Nous yak politique ba ñëpp politiques, du politique mu ne la avons wax loo nous def une nous politique nous génération mission nous am réconcilier le peuple avec la politique Nous ci changer

ñun dañoo wootewu diine ak diine bu ñu munti nekk fii dañoo wootewu diine waaye léeg-léeg di nga gis ñoo xam ne wootewuñu diine waaye ñoo ñu gën a baax jikko fupp nag su dee dañ ko seet ci politique kese ndax tubaab yi ñuy tudd tey boo fa demee di nga gis ni ñoom ci jikko ñi ngi appliquer li ñu suñu diine sant ñun mooy respecter heure liggéey bu jotee nga jox ko àqam rendez-vous nga respecté ko àqu jàmbur nga respecté ko ni ñëpp bokk ñu bokk saytu ko loolu rek lañu diine sant nag suñu diine gi ñu gëm ñun loolu rek lañu sant ñun nag safaan ba ñu gis fii rawatina nag suñu acteur politique yi moo tax am na imam bu mag a mag a mag nekk Égypte yàlla def mu da def ay xutba yu méttee métti métti di attaqué tubaab yi benn at mu feebar ñu faja a faj a faj Égypte ko faj ñu ko il faut nga dem Angleterre que ñoom ñoo la mën a faj mu lànk gars yi naxanteeg moom gars yi yóbbu bi ñu demee mu faju ñetti weer ñëw wàcc aéroport journaliste yëpp ñëw taral ko micro ne ko imaam loo gis mu ne leen bi ma demee de fekk naa fa ñoo xam ne duñu jullit waaye ñu yor jikko jullit ñun nag ñuy ay jullit yor jikko safaan wa loolu rek mooy différence suñu digganteek ñoom bis bu ñu tegee réew mi ci jikko yu rafet léegi ñu defar réew mi ci diir bu gàtt jikko nag ci wàllu état suñuy wax valeur ci wàllu état mu ngi dellu lépp ci alalu réew mi naka lañ ko yoree yéen nag Louga dafa mel ni am ngeen ci as am ngeen ci sax ay natu bokk ndax li gën a fes tey li gën a fes tey ci ñuy wootew ne ñoo leen di représenté amu ci kenn koo xam ne dina dajale lugatuwaay wax leen programme wax leen xam-xam te fi ñëw nee nañu kii day distribuer ay billets d'argent keneen ki yéen xam nu ngeen ko tuddee lenn dinaa leen ko wax su ngeen gisee ab fonctionnaire man di nekkoon naa fonctionnaire quinze ans. quinze du benn fan du benn at te yàlla xam ne ni fa ma newoon bu ma bëggoon lu nooy dong dong dong dong tey maa ngi tabax ay château waatal naa Sénégal man ni mësumaa jël fukki dërëm bu ma moomul bu amee yàlla ma yàlla lakk bi coow li bëri na waaye du ngeen mës a dégg ni juge woon na Ousmane Sonko du mës a am xam nga tuuma nag yomb na ma neexoon léegi romb ne gis naa Mame Talla ci sëgee muy déterré ay néew dina am ñu ko gëm parce que Sénégal a demee noonu waaye suñu demee bay jiiñante jiiñ nit nag ci loo xam ne dafa jëm ci lu war a mën a dem ci kanamu juge yow mayor nguur moom mu ne opposition ñu ne mooy sa opposant bu la gën a lakkal fi mu toll nii yàlla xam na ni bu ñu amoon lu toll ni tarfata ayn maa nga bés bu yàgg yàgg moo wax leen nag ni def naa 15 ans fonction publique fonctionnaire bu mun a ñëw fii Louga yor xaalis naan mu ngi koy distribuer ñuy wax ñu ne ab château la tabax boo demee Dakar ñu ne la tool ba rek mat na 2 milliards xam leen ni 94 milliards jaar na fi de. kon contre xam nga waa Louga lii fierté Louga la parce que suñu defoon li ma wax léegi bi ma jaaree Linguère li ma wax ma jaaree Linguère gis nga li ñu waroon def programme lañu ñu war a def ñi ànd ak Macky Sall yëpp te moom mu leen di protéger te nag ku protéger sàcc ndax receleur nga.

bu dee sax ki yor dëkk bi mi ngi lay protéger yow di nga am gàcce ba Sénégal yëpp xam ni say propre mbokk ñoo la njëkk a yi loolu bokk na ci méthode yi ñuy xeexee nger ak corruption ci réew mi moo wax nag ni valeur yooyu ma tudd dafa am solo ci réew Sénégal ñi ngànk réew mi li ñu nekkee ñaaw na ñaaw na su ngeen ci xamoon lépp yàlla xam na ni ku fi dugg ci ñoom ngeen ngeen daggati ko loolu nag ñàkk yërmande ci sa askan weesuwul loolu aw askan boo ko buggee defar da koy yërëm aw askan boo ko bëggee defar da nga koy bëgg les 14 million de sénégalais soo leen bëggee defar kenn ku nekk ñoom da nga war a bëgg sa biir xol loolooy defar askan réew moo xam ne Mortalla wax na ko léegi nee ñu ay jigéen ñu ngi leen di teg ci ay saret pour ñu dem wasini léeg-léeg ñu jaare fa ñàkk seen bakkan wala ñàkk seen doom loolu am na Sénégal gi au vingt-et-unième réew moo xam ne ci couloir hôpitaux yi lañuy teg nit muy sukuraat ñu ne amuñu lal buñ ko teg démb ñu may signalé ni hôpitaux Sénégal yépp dañoo am rupture anesthésie anesthésie lu toll ni anesthésie ça veut dire que

ak bëgg a tekki ak bëgg a jàppale say waajur moo tax yi di dem ci géej ci géej gi moo tax ñu jël désert bi fulla googu ñu am bëgg a ñu ne la tey nañu presque 60 60% de taux de chômage ci ndaw ñi réew moo xam ne jigéen ñi amuñu jumtukaay bu ñu liggéey amuñu financement wala ku ko bëgg am il faut que nous dem tàccu len feccal len yu la as buñ la éducation nationale école amatul fi ku amul alal yob sa dom école privée ça moytul sa dom du ci jamono seeni Canada États-Unis dama dañu inscrire constitution Koufi exerce exercer responsabilité publique say doom école publique Il y a eu it amatoo droit jël avion de maa ngi faju ji Paris wala États-Unis hôpitaux yi hôpitaux publics pas ngay Vous buñ ko defoon léegi école bi baax hôpitaux yi baax man samay doom école publique la ñu Amna, nous voulons lu ma leen privé waaye man dama gëm école publique parce que moo ma formé man. réew loolu lépp daje nag nga mën a am benn waay bu toog ci bureau jël ay milliards askan wi milliards yoo xam ne kenn ku ne ci yéen dërëmam dugg na ci mu mën a jël ay milliards askan wi luubal ko ba pare ne kenn ko tudd soo waxee dañ naan moom dénoncé la fi nekkee danañu dénoncé fii rek yàlla ñuy may ñu mun a ñu am ñu am fekkee ak tal lu ñu yéeg ci luubal ak njombe nañ ko dénoncé parce que askan bi dafa war a xam li xew loolu dama ne ñi koy def c'est des criminels xam nga criminel kii nekk ci mbedd bi di agressé di jël kalpe kooku criminel bu ndaw a ndaw ndaw la par rapport ak ki toog biroom ñu koy fay salaire bu baax waaye loolu doy ko muy détourner ay milliards du peuple sénégalais ñoo c'est des criminels un criminel nak il faut le châtier un criminel dañ koy duma motax bu ngeen ñu wolo ba jox ñu dëkk bi bu ngeen ñu wolo ba dénkuñu ko bu soobee yàlla ñun waxuñu vengeance de man jàppaluma kenn dara lu ne nit def man à titre individuel personnel baal naa la ko jàppaluma kenn dara waye nag nit ñepp bokk kuñ ci joxone responsabilité di nga rendre compte askanu Sénégal loolu mënul ñak ñun ci suñu projet suñu programme dañu né une justice indépendante président de la république du jox ordre de justice président de la république du jox ordre procureur justice dañ koy à son âme et conscience nous nañu les corps de contrôle yi nga xam ne seen waa ñooñu may tudd 94 milliards yi moo ci gën a tuuti dem leen corps rapport contrôle. yi li xew titre de Sangalkam Nous avons defa def ba xamatuñu dañ ne corps de contrôle yooyu di def loolu muy cour des comptes muy IG muy keneen ak keneen dañ leen di génne ci supervision président de la république wala ministre de la justice ay organes yu autonome la ñuy doon di programme lu leen neexee di vérifier lu leen neexee di saisir directement le juge transmettre ko rapport bi juge xool su ko doyee ba mu xam ne ni def na ñu woo ko mu la yow dans un procès juste et équitable bu ñu gisee ni moo def na dem nugg sin toogi foofu ndax xaalis bi mu jël dërëmu jaaykatu caaf baa ngi ci dërëmu étudiant baa ngi ci dërëmu médecin baa ngi ci dërëmu new di doole baa ngi ci kon kooku mënuñu ko bàyyi mu dem toog noonu jàpp ñàmburam ñu naan maslaha maslaha Sénégal maslaha moo ko nar a yàq valeur dafa am solo ñaareel bi mooy patriotisme bëgg sa réew réew patriotisme moo koy def moo koy tabax am na ñoo xam ne bu ñu leen nee ñun patriotisme moom la ñuy woote mooy suñu idéologie mooy suñu doctrine dañu naan loolu du idéologie kan moo leen ko wax parce que tubaab bi nee na leen libéralisme ak socialisme ak communisme loolu mooy doctrine déedéet yooyu du doctrine de yooyu yëpp xam ngeen lan moo ko lal mooy patriotisme tubaab bi dañoo gëm seen réew fonk ko seen intérêt national ak li ñuy wax intérêt stratégique. gisna fi suñu su ñu ne woon xeex am fi tay ñu ne ben américain rek mi ngi fi américain yi mën na len jaral ñoo bombarder fi yépp pour jël ben américain boobu yóbbu ko mu ñibi lool moy patriotisme ñom seen dëkk lañu gëm seen citoyen lañu gëm si walu économie américain français turc keneen ak keneen ci yem chinois moy li olof naan

génn nag at ak genn wàll ci gannaaw ba léegi gis nañ ñu dind ci dara ci livre bi dama ne moom Macky Sall li mu def c'est de la haute trahison xam nga ku bind loolu noir sur ci livre te bi ma koy bind premier ministre bi nga xam ne borom mbaras tax naa ko war a tuddee defe naa moom mooy borom mbaras kële di borom wàngoo premier ministre bi dafa taxaw ne ku waxati ci pétrole bi ñu tëj la kaso ma ne ko man xeeb naa wax dama ciy bind téere ci téere boobu dama ne moom de mu def dañ koy tuddee haute trahison parce que keroog bu muy signé di ko signeel ñoom Frank Timis saay-saay yooyu mu ànd ak rakk ji Alioune Sall léegi naa ko mu naan Sonko moom kenn xamul lu mu doon dégg naa day julli guddi ba jéem bi dafa ñuul waaye man de ku ma xool xam ni ba léegi niroogu ma ak barigo ndax man du ma lekk riba moo tax ku ma xool xam ni nit dong la ma leen moom bi mu koy signé moom Macky Sall Mon xamone ne li pas signé waru koo signé parce que kim koy jox waru ko À jox la république nag boo xam da nga prêter serment article 37 constitution mais yow war nga ni di nga appliquer que tu vas appliquer et tu vas faire appliquer la constitution et les lois de ce pays bi ti ku doon yow ko xamné ya yaa violer les lois et la constitution que ce qu'il a fait c'est de la haute trahison nga jël nak ay milliards et milliards dem enrichir ak sa au détriment du peuple sénégalais lool soko de trahison lan nga koy kon patriotisme weesuwul vous su ngeen gisé nak may ci dama bëgg ngeen xam ni am ma bëgg permettre ñu mi bëgg mi muy moy. su intérêt réew mi taxawee sa intérêt bopp taxaw nga gis ni sama intérêt bopp fi mu toll nii méngawul ak intérêt réew mi nga bàyyi sa intérêt bopp jàpp ci intérêt réew mi loolu mooy defar réew patriotisme mooy la ngay def nii tey bul ci seen tout de suite bénéfice wala retombée da ngay def li ngay def xam ne lii njëriñu réew mi la amaana sax meññit bi duma ko fekkee waye sama un ak sama seut dina ko fekke dañuy faral di wax ni que France gas métro yi ñi ko doon gas di gas ni ci métro premier métro bi daw ñoom ñep dee nañu waaye xamoon nañ ni du leen fa fekk waye seeni dom ak seen seut lañ ko doon liggéeyal motax tay seeni dom ak seen seut ñi ngi dégg ci di déplacer wu. patriotisme waye ni ñu jikko ba dugal ko ci politique ma nga mi ngay changé bu baax nag ak Pastef ak suñu coalition ak ñu andal. parce que ñi fi tok bu 2h du matin te amul kenn ko xam ne jox nañ ko fukki dërëm pour mu tok, ça veut dire que bir maa ngi changé nag mais demoon nañu ba ko wax ci politique ñun biñuy door politique maa ngi ko mos nañoo dem ben quartier périphérique ci Dakar gaa yi dajale nit ñi ci benn salle bu ndaw boobu ñun vingt personnes trente personnes la ñu mënoon am cib salle gars yi dajale ay nit ñuy waxtaan waaye ñi ngi waxtaan ma dégg ma gis ay ñu toogoon ci kanam jékki-jékki kenn ki ne man ma ñëw di wax ci budget bi di ci li ñu di wax ci pétrole bi ngi toog ma jékki-jékki dégg kenn ki ne ko waaw moom de wax bëri waaye lu mu àndaale sax. parce que dañ leen commencé woon tàmmal loolu ci politique politique du loolu la xaare ci acteur politique benn mooy na am gis-gis ak programme ci réew mi ñaar mooy na doon ku jub loxoom set wécc ñett mooy na doon ku euh, ku ku am patriotisme bëgg réew mi bu loolu amee nag ba ñu wóolu ko jox ko nit ki ñuy jox wala ki ñuy dénk dañ koo dénk waaye bàyyiwuñu ko mu dem dañ jox budget jox ko administration jox ko armée jox ko gendarmerie généraux jox ko sañ-sañ mu wax ci suñu diplomatie ne comme dañ nga dans d'excellentes conditions xamoo di jar xamoo lu di jar di jar courant ne la boo demee ba président de la république toogal sa kër rek weer weer wu ne dañ la fay lu mat sa soxla yépp ba pare jox la ku lay toggal jox la sécurité ne la bëgg nañu sooy génn bul tardé fenn donc dañuy arrêté ñëpp yow sa cortège dem néew sax wala ku feebar sax dañ koy arrêté yow nga dem sooy tukki bëgguñu nga raa aéroport jëndal lañ la roppalaan pour yow dong ak sa njaboot ak say ministre soo buggee nga dem tukki kooku lan la bi deseel kon kooku noonu ñëw bëgg ngeen dénk ko wóolu ko jarul muy jël xaalis di ko joxe ndax loolu war naa tey xelu sénégalais yi ku la ne jox ma réew mi ma liggéey bay bëgg a dee pour defar réew mi waaye day jël xaalis joxe ko moo tax su ngeen leen falee gis ngeen ki ngeen fal fi mu toll nii booy ne nañu le peuple maigri lui il gis nga président américain yi ci fal nga am 42 ans 43 ans 45 ans dañ lay fal nga nekk xalé bu ndaw boy paré ce premier mandat ñeenti at rek la ngay ba jaaw gis ngeen Barack Obama gis ngeen Bill Clinton gis ngeen keneen ak keneen waye fi ngay fal nit muy funki rek parce que liggéeyul président la République boo xam 10 heures ngay xeyé sa kër ñu bloqué Mermoz yëpp pour nga dem palais kooku liggéeyul. kon mbokk yi lii dafa am solo ci li ñuy wax parce que jikko mooy defar réew patriotisme mooy defar réew kii taxaw fii patriotisme moo tax ak jikko te dañ ko cee yar wax na ko keroog suñu mitingu Dakar bi nañu delloo si jikko yooyu ci fukki at laa leen wax ñu defar Sénégal ba mu ne cocc kenn ku nekk gis sa bopp ci biir réew mi région Louga nag gis nañ ni ci parents pauvres région yi la bokk xam nga dinaa répété lu ma wax ñaari yoon ba ñetti yoon li tax tànneef tànneef ci ka war a jiite réew li tax kenn du ko wéer ci bopp sama mbokk la wala sama xarit la wala moo ma jox xaalis su doon mbokk rek kon Louga wees na fii parce que Louga doomu Louga jiite na Sénégal vingt est-ce que loolu dafa dafa tax mu am sañ-sañu jël budget Sénégal ñëw xëpp ko Louga doomu Joal jiite na Sénégal vingt ans tey soo demee Joal Louga ko tane doomu Kébémer jiite na Sénégal douze ans est-ce que am na lu changé Kébémer kon ñii ñëw di utiliser fibre boobu naan sama mbokk ngaak doomu Louga laa jàppale leen maag dañuy nax Sénégalais yi nañu tànn ku mun a defar Sénégal ak ku mun doon ak lan moo mun ci doon diineem wala tarixaam wala région bu mu jóge wala xeet bu mu bokk xam nga lu am solo kan moomu mun a defar Sénégal parce que suñu defaree Sénégal kenn ku nekk ñu séddale alal yi kenn ku ne jox si sa wàll Louga ngi nii wax naa ko tey lu nekk fële Louga ci région yi ñu fàtte la nee su dul woon émigration bi ak émigré yi ba moytul njaaxum am de dafa am Sénégal dama wax benn journée ñun dañoo war a bañ sax léegi dama dem Matam def tournée ñu ne ma école bi émigré yee ko tabax poste de santé bi émigré ko amagul médecin amagul équipement forage bi émigré koy gérer may len nak jot nañu est-ce que émigré sax war nañu continuer parce que c'est parce que émigré yi ñu à l'État que l'État continue à être irresponsable c'est parce que les émigrés se substituent à l'État que les populations ne sortiront jamais pour dire halt ».

ah dégg li ma dégg dégg li sonko wax de ah mbir mi doyna war waaye dafa jot ñu am conscience citoyenne ba citoyen ñooy jóg bis bu 1 million de citoyen jóge dox jëm pare yàlla xam na ni makisal dootul def li muy def ni kon seul le contrôle citoyen peut libérer le peuple waaye dama ne louga t 'en dama ne Louga bu dul woon bu dul yi boo moytuwul lambay ñaaw kon loolu ñu gis fi Louga ñun am nañ ci xalaat waaye dañu bëgg ngeen xam ni am na ay menaces yuy peser sur la région de Louga ñëpp gis nañ ni avancée de la mer am na parce maa ngi Louga waaye région de Louga lay waxal loolu war nañ cee jël ay matuwaay. parce que capacité région de Louga vois l'eau, artisanat vois la culture ci l'eau agriculture tu vois l'eau élevage capacité région de Louga vois l'eau pêche parce que nous voulons dañuy Louga accès ci géej Tu vois, war fee mën tourisme parce que ñëpp xam nañ ni culture Louga dafa riche. saa yi ñuy def événement concours culturel au Sénégal Louga moo koy gagné ñëpp xam nañ ni artisanat Louga macha allah kon ñaar yooyu fu mu dajee culture ak artisanat war nañ faa mën a xëcc tourisme bu baax a baax a baax te tourisme li mu mën a indi ci gox ak cim réew en terme de devise kenn xamul nu mu toll. kon ñun am nañu yéene. ci développé yooyu fii ci région de Louga waaye am nañu ci suñu programme dañu bu ne dafa am une ville pétrochimique bu ñu bëgg a tabax Sénégal gannaaw nag bi ñu renégocier suñuy contrat ba suñu pétrole ak gaz ak a gen nga xam ne di pour cent rek lañ ci am dégg naa ñoom waa Bennoo Bokk walla waa Bennoo Tas Yaakaar dama leen dégg léeg ñu ne moom pétrole rek lay wax may leen dinaa wax pétrole de dinaa wax gaz dinaa wax zircon dinaa wax phosphate parce que dama xam njëriñ loolu loolu njëriñ ji mu mun a amal askan wi ak réew mi waaye ma wëlbatiku gis ñoom niñ ko sànkee soo demee ba ñu ne la sa alalu réew 10 pour cent rek nga am ci droit yi musiba weesuwul lool moo tax il faut ñu wax ci loolu nag nga xam ne ci suñu programme dañu ne dinañ ko renégocier neex na naqari na dañ ko renégocier ba Sénégal bu ñuy xayma dinañ ne nu mu tuuti tuuti am na 60 ci alalam nu mu tuuti tuuti laa wax buñ ko defee ba noppi nag dañoo bëgg a tabax ñun lu ñuy wooyee une ville pétrochimique mooy produits dérivés yi nga xam ne day am ci pétrole ak gaz. nous mun a am benn ville boo xam ne loolu rek lay def ñu fay transformer ville boobu nag Lompoul gii bokk ci région de Louga nous avons bëgg ci programme implanté ko foofu loolu a créé des milliers d'emplois dégg naa ko wax Jakarta créer des milliers d'emplois pour la région de Louga a créé des milliers et des milliers d'emplois la région dugal ci économie lu loo xam ne dina yok lu bëree bëri en terme de formation amna ko wax élèves yi balaa ñu leen di yóbbu ñoom ñuy jàng la même chose ñu orienter leen vers ces métiers là parce que c'est des métiers d'avenir kon loolu benn aspect rek bu ma jukki ci programme bi comme dafa guddi te tey defe naa bii mooy suñu ñetteel wala ñeenteelu meeting. xamna ni son ngeen way ñu ni son nañu dama leen di wax rek ni dinañu génne programme bi di ngeen ci jot suba li ñu wax ci artisanat di ngeen ko gis li ñu wax ci secteur artisanal artisanaux yépp di ngeen ko gis su ma ko naroon tarif yi defe naa dina gudd trop waaye ma dellu si daaneel ci une note politique mooy mbokk yi 2019 bii on a une chance historique de reprendre notre destin en main coow li bëri na de gis ngeen politiciens yi gis ngeen candidats yi waaye dama bëgg su ngeen di dem di tànni na ngeen bàyyi xel lenn la ñu war def wala ni ñu Sénégal 50 ans yi di le 24 février 2019 le ko Sénégalais yi décidé dina baax dina dina baax ba mu bon waye lepp a ngi dépendre ci suñu choix dañuy ñuy def néew na candidat yo xamné dinañ wax les vrais problèmes du Sénégal té les vrais problèmes du Sénégal mi ngi tourné ci suñu souveraineté moomuñu suñu bopp dañ ñuy nax dañ ñoo nax noot ñu waaye moomuñu suñu bopp.

te bu ñu kenn nopp nag ba tey nee nañu ñun dañuy nekk suñu biir réew amuñu sañ-sañ ne lii baaxul ci ñun parce que loolu soo waxee ñu ne la gars yi dañoo am doole noo yooyu dégg naa say analyse yu naan kuy yott du sëqat ñun yottuñu ñun dañuy def dañ koo def bëccëg mbir kam parce que suñu destin duñ ci foo duñ ci làqatu enjeu yi mooy réew mu mus a am pétrole gaz ak yeneen ak yeneen réew moomu

candidat bu ñëw nag te yi may tudd ñemewu cee wax su leen nee dinaa defar réew mi daf leen di nax parce que kenn mënu defar réew mi te réglé wu problème yooyu réew moo xam ne sa secteur yëpp jaay nga ko commerce bi sax léegi nee naa marché yi ñu amoon ci koñ yi léeg mu tëj boutique yi ñu am boutique gu jàll yi léegi mu tëj parce que jël nañ secteur de distribution bi jox leen ko réew moo xam ne. waa réew mi dañuy nekk gan ci biir réew mi bu ñu defee demee ñoo ñu nekk gan seen réew ñun bokkuñu fenn kon loolu mooy enjeu 2019 yi yéen nag waa Louga yéen suñuy papa yéen suñuy yaay yéen suñuy jigéen yéen suñuy frères et sœurs nañu xam ni lépp nag mi ngi dépendre ci yéen dong dong dong moy dem len jeli carte électeur yi d'abord ku ko ci jotagul woon demal jeli ko ngir yalla ndax bari na carte yo xam ñi ngi ci commission yi batay tey gannaaw bu ngeen jëlee carte yi li ci dess ci campagne bi kenn ku nekk ci yeen candidat la bu len japp ni Ousmane Sonko moy candidat bi chacun d'entre vous est un candidat chacun d'entre vous doit battre campagne dem tekki nit ñi seen bureau fekk leen ci marché yi fekk leen ci kër yi fekk leen ci daayira yi waxtaan ak ñoom sensibiliser leen ñetteel bi ci gannaaw loolu mooy na ngeen dem voté ji bu leen kenn découragé parce que jeunes yi d'habitude dañoo seetlu ni daanuñu woon voté taux d'abstention yu gën a rëy ci jeunes yi la mënoon naa comprendre nag bu njëkk ba ndax man mii bokkoon na ci ñi doon wax ni mbir mi jaaru ko parce que ñoom ñëpp benn lañu waye nag léegi amna lu bees ci politique gu Sénégal kon génn len yeen ñep ngeen dem voter ji massivement les jeunes bu ngeen voté ba paré tok len ngeen sécuriser le vote parce que Macky Sall yaakaarul ci loubal lu loubal élection parce que mom xam na ni il ne pèse plus 25% dans ce pays loolu bu ngeen ko défé remplir ngeen sen part de contrat la ca dess nak suñu part de contrat la te bu soobee yalla dinañ ko remplir ba sénégal yëpp ne ñun fan lañ doon nelaw pendant cinquante neuf ans fan lañ doon nelaw ba Mamadou Dia romb ñu fan lañ doon nelaw ba Cheikh Anta Diop bi ñuy célébrer tey jii romb ñu ma daane nag ni foofu lay daanelee dañoo am war a am fierté di joxe en exemple ñi nga xam ne ci secteur bu nekk ci suñu réew def nañ lu tax ñu war leen joxe en exemple tey jeunes yi dañ soo leen waxee ci affaire entrepreneur dañ la wax Bill euh, Bill Gates dinañ la wax Steve Jobs ak keneen ak keneen waaye nañuy joxe exemple ñoom Djily mbay mii nga xam ne ils sont partis de rien et ils se sont faits ci seen doole ak seen ñaq ak seen liggéey te gannaaw bi ñu demee ba yàlla jox leen dañoo dellu si wëlbutiku seen askan bi jàppale nit ñi ñooñu suñuy royukaay lañu te ñun dañoo gëm entrepreneuriat national dañoo gëm protection de de du secteur privé national moo tax vous les jeunes on vous donne un exemple Djily Mbaye on vous exemple Ndiouga Kébé yal nañu yàlla jàppale yal na yàlla aar Sénégal yal nañu yàlla jox ndam bu leer nañ au premier tour nag au premier tour le 24 février. waaw ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant asalaamaaleykum. olarak Pardon. Thank you. y à a na m x bi yóbbu a kanam ca k S'il vous plaît. S'il vous plaît. Un mot pour les internautes. Vous êtes en direct sur la page euh, Sonko officielle et on voulait vous demander quel est votre ressenti euh, au sortir de cette, euh, de cette 嗯。 très fier de moi. c'est cohérent, ça tient la route. Tout ce qu'il dit, si nous l'appliquons, le Sénégal va se très rapidement. Même 10 ans, il le dit, juste parce que je veux euh, être poussé. Mais tout ce qu'il a dit, si nous l'appliquons, le Sénégal va se développer très rapidement. Moi, je suis très fier. Aujourd'hui, si je fiche en politique, de m'afficher devant le entero. Loco con la patriota. j'aurais trahi mon combat et mes convictions si aujourd'hui je suis avec une personne qui a été, qui a été dans, la corruption, qui a volé l'argent du peuple. Moi, je suis devant un homme qui a travaillé pour son peuple, qui a subi des pressions, une injustice qui a été radiée et qui a tenu, qui a tenu bon, qui a sacrifié son travail pour son peuple, qui avait la possibilité de s'enrichir sur le dos de son peuple. Il s'est dit non, parce qu'il craint Dieu parce qu'il aime son peuple, parce qu'il sait que si tout le monde fait comme ça, le Sénégal va vivre. On est en train de le vivre déjà. Lui, pourquoi on est content d'être avec lui Parce que dans notre musique, dans ce que nous faisons, nous avons toujours dénoncé. Nous avons toujours dénoncé la politique, comment ça se fait ici en Afrique, comment ça se fait ici au Sénégal. Nous l'avons crié partout. Nous avons toujours dit quand est-ce qu'on va avoir un député qui va parler pour nous première fois qu'il a été à l'Assemblée nationale, il a représenté son rapport. Il a parlé pour eux, il a dénoncé les magouilles qui se font à l'Assemblée nationale. La première disait, quand est-ce qu'on aura un président qui viendra nous convaincre avec un programme. Les autres, venez, autres venez nous convaincre avec de l'argent. Venez acheter les consciences. Nous, on attendait quelqu'un qui vienne nous convaincre avec un programme, un vrai programme qui peut changer le Sénégal et qui peut influencer l'Afrique. Donc ce candidat-là, il est venu. Donc nous, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas rater l'appel la, de la patrie. Nous ne pouvons que nous aligner et lui donner de la force. Ce que nous, ce que nous faisons, ce n'est pas de la politique, ce que nous faisons, c'est une révolution. Notre patrie a besoin de nous. Nous devons oublier nos intérêts crypto-personnels et tout le monde doit s'engager. Tout le monde doit s'engager. Je vois que euh, euh, les immigrés, la diaspora, les étudiants, les intellos, les cadres, toutes les euh, personnes véridiques sont derrière le président Ousmane Sonko. Et ça, c'est parce qu'il a le discours de la vérité. Et ça, c'est parce qu'à travers son, parcours, il a montré qu'il était quelqu'un d'honnête, qu'il était quelqu'un qu'on ne pouvait pas corrompre, et il l'a démontré à travers son parcours. Ce n'est pas quelqu'un qui joue de nulle part. C'est quelqu'un qu'on peut aller euh, contrôler s'il a été dans des affaires bizarres, s'il a été dans la corruption, s'il a volé nos milliards. Ça, on peut le vérifier. Il est le seul à dire publiquement tous les jours j'étends, j'étends, vous pouvez le vérifier. Et le jour vous trouvez que, que vous, trouvez que vous un de vos francs, mettez-moi là en prison. Aucun de nos politiciens n'ose faire comme lui. Ils ont des milliards injustifiés. Le président qui est là, il a, il a, il a, 8 milliards avant d'être président. 5 ans, le président Ouad l'a pris. Sur 5 ans, il est devenu multimilliardaire. Il n'y a qu'en Afrique qu'on voir des choses comme ça. Jacques Chirac, il a été condamné il n'y a pas longtemps sur des affaires qui, datent des années 80. On a besoin d'une nouvelle façon de gérer la cité. On a besoin d'une nouvelle façon de faire la politique. Ousmane Sonko apporte cette nouvelle façon de faire. nous, la jeunesse, nous sommes derrière lui. les immigrés sont derrière lui. Et toute la jeunesse, je vous demande, essayez de convaincre vos mères, essayez de convaincre vos pères, essayez de parler avec vos, vos soeurs. Essayez, chacun doit être candidat comme il a dit. Chacun doit se dire que je dois faire campagne. Nous devons sauver le Sénégal. Si nous ratons ce virage-là, pendant les 50 ans qui vont venir, nous allons encore rester des esclaves, nous allons encore être gouvernés par des forces extérieures qui vont profiter de nos ressources naturelles, qui vont profiter de nos richesses et nous allons continuer de vivre dans la précarité. C'est maintenant ou c'est jamais et le bon Dieu nous a donné quelqu'un de Ousmane Sonko qui est capable de changer la euh, donne. Engagez-vous prenez votre responsabilité. La patrie a besoin de vous, le pays a besoin de vous. Allez récupérer vos cartes, essayez de convaincre le maximum de, gens et changeons la donne le 24 février changeons la donne en président vous Je pense monde Merci. Sem valor, sem Essa crise do Pelé, o fato de chutar, o amor, o tentado, através da nossa website ali like this complicate. You can't download easily. Uh, yeah, but sanction. It's all investment. Il faut qu'on revienne à ces valeurs. C'est important. Que la chose soit respectée. la chose soit bien gérée. Et que, bon, on ne pas les écarts par rapport à la gestion de la ville. la corruption particulièrement les surfacturations dans les marchés publics, le clientélisme, le népotisme, autant de choses qui impactent négativement sur le développement économique et social de ce pays. Et nous, notre principal combat, avant même qu'on soit en politique, quand on était encore fonctionnaire, quand on était syndicaliste, notre combat, ça a été ce combat-là. La procédure maintenant qu'on est en